mutation bi mu nar a euh, APR dina connaître une une une une une mue APR fera sa sa sa euh, des problèmes en interne il de l'incompréhension cette présidentielle n'a pas révélé euh, tous ses secrets le candidat Amadou Ba a été lâché euh, boycotté chahuté même euh, par, par par par par certains au sein de son de son de son de son de son groupe alors euh, horizon nga gis pour Euh, APR d'abord. alors avant APR li nga wax ne Amadou Ba a été lâché chahuté ceci cela xam nga bi président Macky Sall di choisir Amadou Ba deful unanimité c'est normal choix wu doomu aadama la il ne fait pas l'unanimité man bokk naa ci gëmu ne Amadou avait le profil pour être le meilleur mais deful woon unanimité malgré tout le président l'a choisi te ba ma ko choisir pare na pour def tout pour Amadou gagner schéma bi ma la wax nii léegi nii loolu le président Macky Sall gëmoon wane na ni le président était prêt à tout faire pour mu gagner su fekkee ni dem na nag ba ñu am jiixi jaaxa naan qu'est-ce qui s'est passé lâché nañ ko lâché wuñu ko d'abord à mon avis ni ñu ko mën a laajee président Macky Sall ni ko lu xew il faut poser la question à Amadou Ba posant la question à Amadou Ba li mu wax parce que on ne peut pas être plus royaliste que roi Amadou moo doon candidat ñun moom lañ doon jàppale. lu ca xew moo ñu ko gën a xam moom mi nekkoon ci biir di def di dindi kon moom mi nekkoon ci biir di def di dindi bu ñu wotee ba pare mu jël kàddu féliciter remercier le président Macky Sall jàppale bi mu jàppale na ma. mais c'est du politiquement correct. non attends. c'est un secret de polichinelle qu'entre Amadou Ba et Macky Sall euh, il ne filait pas le le le le le le parfait le parfait amour. kon nag bu loolu amee. voilà c'est ça c'est amee li nga wax bu amee mën naa la ko nangul bu nangee mais bu amee. ça veut dire que Amadou jarul topp matul kilifa. xam nga li tax mooy. Ah. man doo ma def lu dul noonu du ma génn di la xas mais du ma génn di la tàgg. mais Sénégal teraanga la ñu xam. te Amadou ku ko ku ko ku ko xam xam ko ci waxu teraanga. d'accord ban bokk na ci li tax ma doon ko soutenir. voilà Amadou kenn su ko dégg mu wax. bu génnoon xarab bu génnoon xarab mu génn xarab mais ku la war a jàppale bu la jàppalewul moo la sopp bu la wéree ni moo la sopp parce que après tout nag may mun na yàlla gémmiñ bi waxul dëgg wax leneen moom su ma la waree jàppalee jàppale wul la waxuma la ni génnal xas ko parce que Macky Sall dafa fekk Amadou Ba mu nekk directeur des impôts mu def ko directeur général des impôts et domaines def ko ministre des finance def ko ministre des affaires étrangères def ko premier def ko candidat am yéene jox ko réew mi ko yéene foofu la mën a yem kon moom amul droit pour di xas Macky Sall di ko wax lu du ko wax sax nag keneen mais mais mais mais mais bu fekkee ni yow nit ki defalu la maanaam moo la xeex ci gàttal moo la xeex ba nga jàkk pouvoir bi. Ah, ko moo ko xeex de. non ba nga ne il a été lâché. non non dans son camp. d'accord d'accord ci camp am na ñoo xam ne dañu taxaw carrément saboté ko. waaw ah. peut-être je n'en sais mais bu fekkee ni Macky Sall da ko waroon jàppale jàppale wu ko man su ma génnee du ma la du la xas waaye dinaa maandu. mënul bu defoon discours remercier wu président de la république sénégalais yu bari xarab ko. maanaam daal dëgg nga bëgg nit ki di wax lu dul dëgg. non pas wax lu dul ah, dëgg. mais bu defoon discours tamit xëy na bu remercier wul président Macky Sall euh, ñu bari ñu bari xarab ko. man de su ma nekkoon place am mas gis ni Macky Sall daf ma waroon jàppale te jàppale wu su ma génnee du ma taxaw di ko remercier naan li ma jàppale. nit ki daal man yow mi nga yow mi ne ci combat bi di xeex la nga wax ni moom nga fa daj la nga wax ni moom defal loolu laay gëm. parce